salaamaaleykum mbokku Sénégal maa lay nuyu di leen ziar bëggoon wax rek moom fu mu toll nii gars yi ñëpp si war a jàpp mooy loolu waaw affaire coronavirus bi ñuy wax tey maa déglu rajo bi RFM dégg ñu naan non ñu doon dundee ñu koy dundee ba léegi léegi xaale na ma leen woon benn vidéo ngeen gis. Europe ñoom tey léegi tey ni ñuy dundee te ñaanuma yàlla Sénégal egg ci lii quoi moo ndax ñooñ di wax noonu naan ni ñu doon dundee la ñu dundee nekk marché di liggéey jéemuñ jël benn précaution am na affaire fu muy toll dëkk nii lay mel xool leen xool leen dëkk bi xool leen dëkk bi xool leen baar yi la nit ñi daan toog di naan tey seeni borom jommi nañ ndax duñu liggéey xool leen yi di daw yëpp dañu am autorisation ba ci man mii di dox dama am autorisation pour dox ci mbedd bi ndax sama liggéey moo tax waaw si di wax ne mbokk moodu moodu yi ak jabaru moodu moodu yi ak gelu moodu moodu yi ku si sa jëkkër wala sa far ren weer yi yónneewul wala lu mu la doon yónnee mu wàññi ko ngeen xam ne lii moo ko waral dëkk bee ngi nii fii yëpp suñu mbokk senegal day fi doon taxaw di daan seen doole góor yàlla fi lañ daan taxaw di liggéey tey kenn mënu fer taxaw kenn mënu fee liggéey gis neen mbedd bi nu mel nii mbedd bee nii picc doxul ñu fi nekk di dox si néew dañuy rëcc génn war a dem jëndi dawaat dugg ndaxte bu ñu jàppee lu ne mën na leen si fekk moo tax ma ne woon naa def vidéo bi wol leen ko Sénégal li ñu leen wax di yàlla yonent bi heure bi du heure werante ñii jël nañu affaire bi dugg si ay sujet yoo xam ne kenn xamul lan la ay sujet sëriñ ki ay sujet lii wakii lale ñu si profité pour indi ay problème yi kenn xamul lii dafa dëgg la dafa am xool leen jofu dafa am lii lii lii lan la lii àdduna bu tukki la bëccëgu ndaar kàmb kenn mënul dox kenn mënul dem kenn mënul ñëw ndax feebar bi fi leen toll ñun Sénégal yàlla dimbali nañu tollooguñu foofu kon li leen médicaux yi di wax li leen médecins yi di wax li leen ministère de la santé di wax jéem leen ko topp ngeen def ko ngir ñu bañ a egg ci lii ndaxte ñun bés bu ñu eggee ci lii ndax ñii ils sont très bien organisés ba nga xam ne lii fi mu toll nii ñi toog seen kër yi amuñu benn problème mais Sénégal bu ñu fa toll woon ah dina ñàng de dina ñàng trop kon nag xam nga comme affaire bi garaawoogu fa noonu parce que fii ñii am nañu dee fii am nañ ay cas yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ñu nag eggaguñu foofu yëpp yàlla dimbali ni kon nag nañ jël suñu précaution élèves yi jàngeetuñu université yi jàngeetul toog seen biir kër yi bàyyi leen lépp lu ngeen doon def toog leen seen biir kër yi ñu mënut a ñàkk génn nañ génn jël seen i précaution yu mat sëkk waaw parce que lii dafa garaaw lii dafa garaaw xam nga dëkk bi dangay bëgg a jooy sax waaw xool leen lii fii kenn amul foo dox kenn amul fenn te xoolal moo fi toogoon tuuti léegi police fekk ma fi neemal looy dox ci mbedd bi gis ngeen lii kon Sénégal yeewu leen baa leen werante bi heure bi du heure werante jàppante leen te leen xam ngeen ngeen xam na leen def li ñuy wax coronavirus bi ku fi taxaw naan du dëgg da ngay nax sa bopp santal yàlla bi mu dalawul yàlla ñu yàlla aar yàlla yàlla ñi mu dal Sénégal ñëpp yàlla ñu wér ñu mu dal si àdduna bi yàlla ñu wér yàlla teggal ñu ko ñu dellu suñuy activité te buñ ci jugee nag ñu xam ni set dañ doon wax ay set setal chaque jour léegi nag di ngeen set li muy jëriñ saya tanya ini lu jering, jëriñ tey ku sete woon ci mbedd mi seg nga sa bopp di nga raxas sa loxo 10 fois si journée bi wasalaam yaa ngeen def waay yàlla nañu yàlla dolli sutura sàmm